القرى بولا فرمات نبو جايو سنخرايو فالقرى بولا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 Allahu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 bëgg ñu jox ko addee Cheikh Ibra Fall buñ ko ko joxul day dem dellu si nan ñëw ngir sëñ Touba loolu rek la bëgg buñ ko ko joxee xolam set ñëw leen ngir sëñ Touba ñëw leen jox ko addee Cheikh Ibra buñ ko ko joxee rek xolam set ñëw leen ñëw leen ngir sëñ Touba ñëw leen ngir sëñ Touba waaw ñëw leen Baye la moom moom Baye Fall la ñëw leen ñëw leen ñëw leen ngir sëñ Touba ñëw leen ngir sëñ Touba jërëjëf ñëw leen ngir sëñ Touba ñëw leen ngir sëñ Touba ñu nag ñu nag ñu nag jàngkat xasaay bi ba midi xasaay bi ba midi sëriñ Mansour Mbaye ngi sëriñ Fallou Seck ngi sëriñ waaw sëriñ Modou ay dem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 Faal. La ilaha ñu may ñu may Serigne Fall tuuti mu jottali kàddu Serigne ñu may Serigne Fall mu jottali kàddu yi bàyyi ko Serigne Cheikh jëm. jaxate fexeel bunt boobu kenn mooy yow. daa mel ni dafa xaw xat. da nga koy bu seen lu yar. Serigne Cheikh Mbacke xëy na si mu ne daa mel daa xaw xat. Tenía una buena señor, yo ya tal vez. coono bu nee duñ ko teg mukk. nee coono bu sañoon duñ ko ko teg mukk. waaye day liggéeyal maamam. waaye day liggéeyal maamam. ñu indil ko ñu indil ko liggéeyal maamam. ñu indil ko liggéeyal maamam nag. kon sëriñ Fall nee na ñu ngi indi nuyoo boo xam ni. ma nga bàyyi ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall. sëriñ Cheikh Jëmb Fall. mu ànd ak rakkam yëpp. mu ànd ak rakkam yëpp. ak doomam yëpp. ak doomam yëpp. ak taalibe yëpp. ak taalibe yëpp. waaye ki teew fii nag nga xam ne moo jiital rakk yi. waaye ki teew fii nag nga xam ne moo jiital rakk yi. mooy sëriñ Cheikh Fall mii. mooy sëriñ Cheikh Fall mii. ñu di ko wax sëriñ Cheikh Ndiaye Ndiaye Mbeng Baye Assane Fall a ngi nii Baye Assane Fall a ngi nii Cheikh Moustapha Fall moom Cheikh Moustapha Fall Serigne Saliou nga ne Serigne Saliou nga ne Serigne Modou a a kii Serigne Abdou Aziz Fall la kii Serigne Abdou Aziz Fall la doomi Serigne Modou Ablaye ñun ñii di wax itam nee waaye ginnaaw tudd nañ ñii rek. waaye ginnaaw tudd nañ ñii nag. moom tudd nañ leen nee tudd nañ leen. kon nag sëñ Cheikh nee na. kon sëñ Cheikh nee na. nuyoo bii. nuyoo bii. ak siyaar bii. ak siyaar bii. mi ngi koy defal njabootu Cheikh Fall gépp. mi ngi koy defal njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp. fa boppam nag. nee fa boppam nag. jiital ca jiital ca. di yeesal ak njëbbalam. di yeesalaat ak njëbbalam. di fetli ak laxasaayam. di fetliwaat ak laxasaayam. di jaayantewaat bu baax a baax di jaayantewaat bu baax a baax nag. fas yéene. fas yéene. ànd ak yow ci liggéey bi ànd ak yow ci liggéey bi nga liggéeyal sa maam. fas yéene foo teg sa tànk rek. fas yéene foo teg sa tànk. boo geesoo gis ko. boo geesoo gis ko. fas yéene ànd ak yow ci liggéey ànd ak yow ci liggéey bu baax a baax nee ci jiital ki nga xam nag ndigalal suñu borom la mu jaar ci sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci suñu maam Ibrahima ba ñëw ci bokkam yam àndaloon moom la ni yeesalaat nee liggéey bii ñu fi indi tey jii juróom benn téeméeri xar la xeeb na ko lool sëñ nee na xeeb na ko lool waaye pësteef bi ak pas bi ak yéene ji moom rek rek moo ci am solo te xam naa la mu yéene ci xol ba te xam naa la mu yéene ci am xar taxaw tey ci àdduna mu moom ko mu moom ko jox ko Serigne Touba mi fi toog loolu mooy yéene loolu mooy yéene Serigne Cheikh Jimba Fall kon nee na liggéey bii kon nee na ko ko ko nangul Mbàkke te fulal ko ko te fulal ko ko ci nag te ci nag ak njëgal ak njëgal ak yërmande ak yërmande ak ndimbal ne loolu ku ko am rek nga xam ne loolu ku ko am rek am nga lépp a bëgg ne li ñu gën a bëgg nag mooy ñu am sa ngërëm rek mooy ñu am sa ngërëm rek bu ñu amee sa ngërëm bu ñu amee sa ngërëm rek am nañ ngërëmul Serigne Touba kon nag Mbàkke nag ñu dimbali ban am sa ngërëm yow tam Mbàkke ñu ngi lay ñaanal ci darajey sa darajey maam ja Serigne Touba Serigne Touba ak maami Serigne Cheikh Jimba Fall ja muy maam Cheikh Ibrahima Fall jotaay bii nga toogal Serigne Touba jotaay bii nga toogal Serigne Touba nga yàgg ci lool Mbàkke te ànd ku wér nag bopp. mën koo eggalaloo kenn. mën koo eggalaloo kenn. sémb yu bëree bëri nag. te ànd ko murit yëpp nag. ak jullit yëpp nee ñu ngi jégalu nag. kaddu yi mu yëkkati. ci kanamu sëriñ bi. ndax am murit kat. daa war a mel am néew daa war a mel ni am néew ci loxoy way sang ya ca loxoy way sang ya nga xam ne du la benn cëram nga xam ne du leen aaye benn cëram du xam waxtu wuñ koy sang du xam waxtu koy suul du xam fu koy suul kon nag murit moom kon nag murit moom bu teewee fi kanamu sëriñam kaddu gum yëkkati kaddu gum yëkkati du kaddu ndigal ca du kaddu ndigal kaddu mooy la kaddu gum yëkkati nag waaye muy kaddu ndigal nag loolu ak topp la kon lii dañuy topp rek kon liggéey ñu mën caa nekk di ko jëfee ñu mën caa nekk di ko jëfee lu ñuy tere lu ne ca lu ñuy tere lu ne ñu bañ faa faa séen waxuma laa di ko jëfee di ko jëfee nag kon nag Mbàkke jërëjëf Cheikh Moussa nag ngeen ne moom dine moom bu nuyoo nii nee na bu Serigne Fall nuyoo moom nuyoo na waaw lu ko ma ko waaw ah, jox na la sëñ Moussa jox na la loxo liggéey bi nag liggéey bi nag ni mu toll nii sëñ Fall ne liggéey bi nag Mbàkke ni mu toll nii yàgg na koo doon yàgg na koo doon da daan doon luy ñëw fii da daan doon luy ñëw fii am lu dem njaareem la daan dem njaareem demaat na njaareem mu ñaar fukk ak juróom-ñett yi daan dem loolu fi la ko Seex Rafal bàyyi woon ñu daan ko def lim bii moo yokk lim bii moo yokk waaye lee bee moom yàgg na lool dal na bu yàgg jërëjëf jërëjëf jëf jërëjëf maa ngi sant di gërëm te te xam ne sant di gërëm dong moo leen fi nekk mhm. ñaan nag walla yokk teg min min min daa leen seen loxo min min lenn liggéey kenn ba joxoon nañ ko wax doo mu dégg maa ngi wax maa ngi wax kon nag dañu naan seen sàmm bi maa ngi leen di maa ngi leen di

لا إله إلا الله an laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah